waaw tout d'abord di remercier waa Médina mbokk internautes yi ak waa Dakar yëpp parce que boo xoolee depuis trois ans ñoo ngi def euh, Medivac maanaam di commencer ci cent dem ci cinq cent demaat ci mille léegi nag xam nga soo def dara sa ba mu leer na ne léegi ñeneen ñi ñoo laaj maanaam tey demande bi moo forte boo leen seetloo gisoo waa gore ba heure bi il est quelle heure neuf ñu war a jëli chaloupe ñoo ngi fi toog di xaar waa Grand Dakar Gueule Tapée Fass Colobane waa Plateau ba heure bii yaa ngi may dégg kon da ngay xam ne Medivac du affaire de Bouba du affaire de Mère Diame du affaire de Mansour Ayanda léegi Medivac c'est quelque chose de national tey boo leen ñëwee ba gis fi élément français au Sénégal parce que ñoom dama leen di remercier avant chose parce que tey benn moment critique na mais dañu ñëw au bon moment gis nga ñoom ñoo débloqué jëndal xale yi mayo te ils son pro promis de nous tey ñoom du ñu sponsor ay partenaires u Sénévac la ñëw man moo ñaari nationalité laa am dama nekk sénégalais nekk francais donc euh, initiative bi Sénébac dañu ñëw gis ñu nañu euh, ñu bokk liggéey pour jàppale xale yi nga xamante ne dañu ay néew doole lañu mënuñu am vacances comme nu ko ñëpp di amee ñun loolu dafa bokk ci li nga xamante ne day làmb day tooyal suñu xol donc immédiatement euh, ñu nangu liggéey ak ñoom waaw directrice euh, Sénévac ak Babacar Diallo ñëw nañu gis ñu ñu ànd ñu gis euh, madame Faye di directrice su euh, centre culturel Douta Seck moom aussi mu jàpp ci liggéey bi bu baax a baax a baax a baax te ñu ko ciy gërëm merci madame. comme ni ko commandant bi waxee Sénévac commencé na ak cent xale tey ñu ngi ci mille xale macha allah nu mënuñu lu dul jàppale leen ànd ak ñoom ça c'est le rôle principal. élément français au Sénégal amuñu dara lu dul mbooloom sénégalais ànd ak ñoom parce que Sénégal ñoo ñuy accueillir dañuy ànd ak ñoom defar mu rafet. Euh, di kontaan trop di accueillir activité bu mel ni buy accueillir 1000 enfants ku wax 1000 enfants xam ni wàllu côté koom ak wa am na lu leen ci war donc boo gisee activité bi am c'est grace au éléments français éléments français yi du ñu am lu dul di leen jaajëfal comprendre nañu seen rôle mooy nu nekk ci wetu nation sénégalaise donc vraiment di leen remercier di leen féliciter pour xarañte bu ñu am ak initiative bu ñu am ak xol bu yaatu bu ñu am pour accompagner initiative bi. ren Sénégal dafa changé avant c'était toujours sur le foot ngoon si nga def cours de vacances après activité ludique ak sensibilisation mais cette année dañ ne ñun dañuy changé première semaine bi dañuy def euh, li ñuy tuddee euh, éducation civique dañu bëgg a si éducation civique parce que ba ñuy xale danga naan xëy huit heures. gis sa tableau éducation civique wala sanitaire wala morale léegi nag ñun il faut ñu telloo ci loolu loolu ñoo ngi ci bëgg ànd ak waa service civique national parce que Medivac particularité mooy ñun xamuñu dara man booba xaw ma dara mais chaque fois damay dem jëli ki xam moom ci wàllu boppam mu ñëw def moo tax waa service civique national ñoom fas yéene nañu ci tey bu ñu jugee ci foofu waa AEMO ñi nga xamante ne ñoom la état de réinsertion xale yeeg yooyu bëgg nañ def ay thème ci délinquance juvénile boo gisee léegi gis ngeen lamb ji amoon fii agression bi village kenn du fi romb te ay xale yu 15 ans xale yi ñoo koy def xale yu ndaw ndaw léegi ñun amuñu droit croiser les bras loolu mooy maanaam suñu sacerdoce loolu mooy suñu credo ñun lutter contre la délinquance juvénile loolu moo tax tey ñu siy taxaw di nga ci dégg ne nag mais anyway amul problème lan mooy am solo mooy xale yi gis ngeen xale yi contentement bi kese kese war na rasulaay doy na sëkk bu fi may def ak jamono tey deex na. keroog la maire ba ñuy dajee ci lancement wu mooy euh, patronage wu madame la directrice bu Douta personnellement remercier naa ko félicité parce que pour ba remercier ko édition yi passé daan na jël enveloppe un million ñëw jàppale Medivac daan jël terrain jaraaf jox ko Medivac daan jël école yi jox ko Medivac mais gisaguñ ko bind nañu demande bind nañu euh, kii relance def nañu relance mais ba léegi amul réaction ba léegi amul réaction léegi nag lii bu ñu demee ba yeneen mairie yi bëgg ko ñëw xëccoog Médina kon defe naa ah monsieur le maire dañ lay woowaat rek tey Médina comme ni ñu ko waxee bien vrai que yeneen communes yeeg ñëw mais lépp Médina la tey xale Médina yi sax ci ëpp parce que nit ki nag kay xalam da ci jaayu wax dëgg fa neex yàlla ñeneen ñi dinañ ci ñëw parce que dañu bëgg ñu benn brassage am benn genre communion entre xale parce que loolu ñu bëgg ñoom ñu bokk ndey ak baay parce que bu doon nañ def commune Gorée couleur am couleur am mais dañuy bëgg bu ñu fi nekk xàmmeewuñu Gorée xàmmeewuñu Dakar Plateau xàmmeewuñu Médina ba Gueule Tapée Fass Colobane nii ba Grand Dakar parce que ñu loolu mooy sor charme Medivac tey nag lenn lu ñuy wax man du may des di remercier le capitaine Georges Diadiou parce que moom moo ñu njëkk a gëm moom moo ñu booleeg élément français yi tey ñoom dañ jël nañ seen base militaire jox ko suñu def ko si suñu disposition seen terrain football terrain basket terrain rugby ami euh, euh, rugby ñu ne ma moo ngi si suñu disposition mais pour transporter xale yi day métti dinañ fa dem mais ñun terrain bi ñu moom mooy terrain jaraaf terrain bu ñu moom mooy terrain jaraaf te man yaakaar naa ni lundi suba buñ fa gisulee xale yi mardi war xale yi war nañ fa entraîner moo tax damay interpeller monsieur le maire ne ko carrément ñun waa Sénégal dañu soxla terrain jaraaf ta yaakaar naa ne am nañ ci droit parce que on est domicilié à la Médina rue 11 angle Corniche moom mooy suñu siège kon nag dañ koy laajaat rek. surtout di remercier Jeannot Bokandé Jeannot xam na <laughs> ñun xam nañu foofu laa mën a yem quoi.